ak fee jawraay lee man an xisiyaale mina daa dalaale waa bil alaale xaalil zaal xinni taa baaxut lel keet kitaaba waqbal ma taaba yaa ndamalo nawra amal jër moo ñàkk na awlay ci xeete be begele ki jar na xam moom salli ala Muhammad صل على محمد سيدنا محمد صل على محمد نبي يا رسول الله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا سيدنا محمد ماي مرتلى جرى يا كار في بفن جمس شيخ بابا صلي الله محمد سيدنا محمد maake jara yaakaar tey jeeg fan jëm seen Cheikh Bamba salli ala Muhammad Muhammad Baay Murtala Mbakke lan yaakaar fi ba fan jëm seen Cheikh Bamba salli Medina bayu Seex Aziz Abo Seex Bara Mbacké jara yaakaar tey jeeg fa nu jëm بس يرفع جمعي قلبك احمد ربي العزيز عبدا كثيرا مصليا على الكريم خطر قلبك اذكر زهر المجيء زورا يلاقى مسلما على الويار فيك الكلم سيغ بمبا سكرتها خدمتي في اللنها إذا لو وفق جل مكلو خطاب بدايا بما يحب وخذ لي أغردي يا سعدا لداري جل مكة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سيانا هايدا بالمنتال جل مكة للمصطفى الذي ترى أملا والصلاة والسلام كل ما حرمت من المغ شيء نبي صلي على من جاء الخد والوجدين آل والي سويني على وسبيل شيء نبي صلي على من جو إلى خير النبي فضل إلى أبونا جدل هايدا فتنين سنبamba وسلما يا ربي يا الختال الأنبياء والمرسلين الأسياء يا إمامنا قلبك وصل يا صديق متايا على الرسول رغمتي مخلاق بابي نغمتي يا سبب بكل شيء نبي وسلما يا سمدي على النبي محمد والي والأمة يا هو كل زيتار سنبابا يا صدقة والخدمة من تقبل خدمة يا wolturɗi sataha ɗoma hayra ba moneru jol makka zaka hiyaru arreɓe saka moneru jol makka zaka sabilu tallaba juglen maggal seha bo zaka hiyaru arreɓe saka moneru jol makka zaka sabilu tallaba ceynabi serigne touba muy sa borom yàlla ko def mu borom mu ni bégal baal Cheikh Bamba ku faatu yaa fa njëkkate yaa buñ koy jullee nga di fa teew rob nga ànd ak di te yaa ñu dem nga de sant Cheikh Bamba wax yonen bi ya wayaw manin manin ko ya wayaw mu ni maya Aziz Abo baax sa waay du keneen sa du xaji jëm fa nee di gëm leneen sëñ Bara mooy sa maam sa waay du du xaj ci gam di gam leneen sëñ Aziz Abo Mbakke sawaay du ñee waayu keneen sawaay du xaj jam fanaan desu gam di gam leneen sëñ Baara mooy maam boo nu joxoon la nu yoroon nu def la nu xanaa yëgoon ni yaru na yaan sarax naat sëñ Abo sa waay du ñeewaayu keneen yaan sa du xàcc jëm feneen disu la gëm di gëm leneen sëñ Aziz Abo baax boo nu joxoon la nu yoroon nu def la nu xanaa yëgoon ni yaru na sarax nu naat مات القرن المعصمة مبارك مترمة تسمى ينهتم على زوي نجل مكة تسمى بسنة يخون لجنتي بريا منته لمغلزل نجل مكة تسمى sunnat Moustapha Gueye jaawartu maa ngi jàng jaawartu fii ki saalub sëñ Abdou Aziz Abou Madiana di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi wéral ko fi mook njabootam njabootu sëñ Touba yëpp yàlla defal nu tawféex yi ëpp yi nu bëgg ci barki sëñ Baara Mbàkke min asheytaani rajim bismillahir rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli sunu mbokk jullit sunu mbokki adina ñi ngi leen di nuyu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waye nak di am contentement ak xel mu dal waye delu di sante yàlla waye di sante le yàlla kep ko xamni tek na tànkam tay ji ci mbacke kadior di bis bi nga xamanteni Cheikh abdul Aziz mom Cheikh mohammed Lamine bar moo ko njëkk a wooteel nga xamni di way juróom wa mbacke kadior waye nek dëkk bo xamni kenn mënta tudd histoire murit te ko ci boole waaye nag sëñ bi balaa maa ñëw ci loolu li nga xam ne moom ma fi indi waaye dama di ab taalibe di taalibe Cheikh Mouhamadou Lamine baara dëkk fee ci Louga ci quartier kër Serigne Bara waaye tey ma nekk fii ci kër Serigne Abdoul Aziz moom Serigne Abo Madiana nga xam ni Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ma daan wax ni fii ci Ndakaaru bu ñu fi wegee taalib murit du kenn man la seen Cheikh Mbacke mi waaye buñ fi regeree taalib murit du kenn ku du sëñ Abou Madiane mi di bàyyi Cheikh Abdoul Aziz waaye nag sëñ Abdoul Aziz ku ñëw ci këram gi tey xool ni fi mbooloo mi ñëwee waaye xool njabootu Serigne Baare gi ñoom ñëpp waaye xool kullu ku mu bokkal Cheikhul Khadim ñu ñëwee dugg si ñoom ñëpp ànd ak mu màggal gi waaye ko xool loolu xam ne nag dafa doon nag way juróom wa xarfan bi xarfin ba mu jeex tàkk ca diiñ ga waaye dond wuy jurum ba ca diplomatie ba waaye dond ko ca wilaya ja waaye dund ko ca baatin ga ba mu jeex tàkk ba tubarkalla macha allah loolu rek la dem leen ci julli ñi am na teg ñum ñëpp waaye nag ah Cheikh Abdoul Aziz ku ko xam xam ni tubarkalla yàgg naa fàdd nag lii nga xam ne di tey jaam yi ndax lépp loo xam ne mës na dugg ci noppam bii mu ci ñaanee yàlla suñu mbur mus ko mu saafaraw loole rek moo waral tey jii nii képp ku ñëw ci Mbàkke Kajoor boo fu ñu jëm ñu nu kër Cheikh Abdoul Aziz moom Serigne Abo Madiyana